addu waxtaanee ki nga xamante ni moom moo di euh, le chanteur Alioune Badara Thiam alias Akon ce fut euh, il a assisté à la pose de la première pierre en 2020 de son gigantesque projet Akon City euh, nit ñi seen xel xawoon na cee ñaaw tuuti Bintaba euh, parce que ça touche à l'économie du pays ñenn ñi ne c'est une ville à peut-être perversion Euh, parce que euh, dafa bëggoon indi miniature États-Unis ci biir Sénégal mm. euh, fële ca Diamniadio te miniature États-Unis peut-être que bon le projet n'est pas encore accompli donc on ne peut pas s'avancer dessus mais on peut juste constater Sénégalais yi nee nañu dañoo doon bañ rek mu indi lépp loo xamante ni moo nekkoon États-Unis discothèque ak li ni mel fii bokkut ak li nga xamante ni moom la ñuy bëgg dund ci suñu réew donte am na ñuy roy ba dàq xëy na c'est un moyen de gën leen yokk fit moom Akon boobu ba waxu ci waaye ñu foog nii itam c'est un moyen économique pour relever justement li nga xamante ni moom moo di wàllu koom-koom réew mi te nit nag boo demee ba ñu ne la gongo ci bitim réew boo fàttali ko sa réew lañ la war a gën a kàttanal ba pare fàttali la li ñu moom bu ko defee nga mën ko booleeg li nga bëgg a indi mu mën a baax voilà Asma mais nag euh, li ciy ñuul tey euh, tey jii mooy ba mu fa tegee xeer ba ba léegi gisaatuñu leneen je pense que def na at à chaque fois da ngay gis euh, au niveau de la presse nit ñi dañ ciy wax naan ko sa xeer bi nga fi tegoon ba léegi mu ngi nii yeeyu ci bi donc foofu itam baax na xëy na mu ñëw leeralal ñu tax bieg boobu xëy na kenn def fa dara bu fekkee wàllum financement la wala xëy na bu fekkee ña jógoon ne rafetluwuñu projet bi lépp mu mën a leeral sénégalais mu taw ba yëf ya daanu gisatuñ sax xeer ba dafay xaw a doy waar daal donc Akon bu fekkee mu ñuy dégg wala ay mbokkam duñ dégg. Mhm. xeer ba mu tegoon fële ba léegi na ñëw wax ñu daal xeer ba euh, fan lay mujjee asma. et justement ah. maman li tax nag ñu wax les les tenants et les aboutissants c'est que ñun des fois on a peur et on freine l'ambition d'une personne. il faut y faire très très attention. nit ki am mhm. yéeneem ñëw goo euh, lu mu ëmb lan la. Hmm? yebbeegul nga wëlbatiku di ko ŋaññi amee ah, ko neexee mu tey kopparam nag. ba pierre bi réer ñu. xam Sénégal dañu am dañu am dañu am habitude de mettre la charrue avant les bœufs. c'est mm-hmm. parce que nit koo xamul fa mu jëm. Euh, mën nga mën nga ko bàyyi ba xam fan la gale. Mm-hmm. ki nga xam dafa nekk doomu sénégalais dem bitim réew. am jom. ak fu liggéey ba mën a tekki ci réew moomu. Mm-hmm. ñëw ni man kat la ma am fee dama ko bëgg indi lu mel noonu sama réew nañ ko bàyyi ba xam lu muy indi parce que États-Unis ak ay réalité mais fii Afrique surtout Sénégal ak suñu ay réalité moom ci dëkk bi la dëkk xam na li fi xew am na loo xam munu ko jëlee foofu indi ko fi directement mm-hmm. noonu lañ lay def yàqal la te xam nga Sénégal moo tax suñu développement dina doy waar Asma Khadija euh, il faut que ñu bàyyi nit ñi ñu ñu àggale seen ay yéene def seen mm-hmm. ay mel def nga ne cité bu rafet nga tabax ko fii def fi marché def fi fu ñuy aire de jeu def fi leneen ak leneen mais loolu suñu avantage la ñun. roxee il faut que ñu ñemee bàyyi nit ñi mën a am projet indi mhm. projet après xëy na naam ñu réajuster à notre culture euh, mooy suñu aada ak cosaan mais il faut pas freiner les gens nous on a ce petit problème là que ce soit du gouvernement ou de la population quand on a peur de quelque chose. Mhm. en général dañu koy dàq. alors que mhm. mën nañ ko déglu. ba muy yegsee ñu mën ko réorienter naan lii kat àndut ak ñun euh, baax na trop mais boo ko defee woon nii mu gën. naar yi noonu la ñuy def. c' est vrai que c' est décourageant Asma ku indi projet am koy bàyyi mu étaler wax point yi nga xamante moom la mën a apporter ci biir réew mu nekk projet boo xamante ne xam nañ ne c' est une bonne chose yàkkamti nañ ko mais dafa am comme li binta li li ñuul ci saw moom moo nekk ci suuf dañuy seen seen xel dafay jaxasoo donc buñ déggee ne Sénégal ñu ngi fiy waaj a defar beneen dëkk boo xamante ne dañuy am seen noonee ak yu ni mel donc loolu ça fait peur da nga naan mais dañ ko bëgg dañoo bëgg a xaaj Sénégal wala lan moo xew donc avant que ñuy interpréter euh, te duñu xam réellement nit ki lan la bëgg donc il faut que ñu déglu ko ci projet boobu parce que Akon tamit nekkul n'importe qui te nekk na sénégalais bu nga xamante ne euh, ci réew ma muy bu mu doon yëngu muy États-Unis nit ñi ñi jox nañ ko fa cër bu baax a baax ba tax na bu ñëwaatee Sénégal loolu c'est une bonne chose mu am ambition ñëwaat ci biir xool li nga xamante ne moo koy doxal euh, loolu tamit dafa war a xool point yi nga xamante ne moom mooy am avantage par rapport ak dëkk bi nga xamante ne moom la ko installé mu gën a leeral nit ñi ci projet boobu noonu. mais aussi aujourd'hui ah on va justement un peu traîner sur ce sujet là parce que beaucoup d'entrepreneurs gis nañu fii euh, kaw borom wari. Mm-hmm. nii la ñuy dammati Kabiru Mbodj nii la ñuy mm-hmm. dammee ay laafa. ñun na jël ani Johnny Johnny Bougane Gueye Dany il faut qu'on à un moment donné qu'on arrête de voir des concurrents parmi nos frères qui ont pu se faire un nom à l'extérieur je rappelle que Akon mi ca États-Unis ñoom Jay-Z ak euh, ña ca des dañ ko bëggoon rey bi muy daw di rawale dem France dañ ko bëggoon rey parce que il revendiquait son africanité parce que aujourd'hui même euh, aux États-Unis il y a deux formes de racisme mm-hmm. mooy tubaab bi raci am racisme ci nit ñu ñu li afro américain yi fa nekk mais afro américain yi nanguñu africain yi fan dem ba pare di nangu seen africanité seen réew te kon yàgg na ci clipam yëpp on a tous été bercés par ces clips mm-hmm. on a toujours vu le drapeau du Sénégal berné n'est-ce pas maman kon kooku moom ta fàtte réewam te bu ñu fàtte ni euh, euh, famille géwél yi c'est des familles de narrateurs culturels kon nag ñooñu cosaan bu leen réer yaay waaw mais xam nga boo bëggee boo bëggee boo bëggee xam sa cosaan dangay wax ak géwél ok mhm. ñooy nga xam ne détenteur savoir bi mhm. nekk loo xam ne ñoo doon denc mhm. histoire bu am parce tey am na loo xam ne asma kenn mënu toog di ko waxal sa bopp boo ko waxee sax dangaa dof boo ko waxee ci télé wala nga toog ci mbooloo di ko wax dañ naan wéroo dafa am loo xam dañ la koy waxal parce ki ko fekkee moo ko mën a nettali wala ki nga xamante ni c'est de grand-père à petit ñoom ñoo lay nekk li histoire la Joor lan la fi defoon Alburi keneen ak keneen ñu leen di indi loolu dafa am rôle géwél boo xam ni dafa am un rôle très déterminant dans la société africaine mm-hmm. bi ñu nekk kon loolu dafa jar bàyyi xel justement seen taxawaay dafa jar a bàyyi xel parce que non seulement dañ lay waxal histoire mais dafa am benn rôle médiateur buñ ñu doon boo xam ne dafa am solo kii dafay wax ak kii mu xam ne séq nañ loo xam ne les relations c'est important mu dem gis Fatima ne ko lii ak lii dem ne Binta lii ak lii ak lii. Mhm. wax ak asma ñoom ñaar ñu retrouvé wu. Mhm. waxtaan bu ñu leen woyee ngeen bokk maam loolu moo nekk rôle géwél mhm. mais c'est dafa am tendance de ban ko dañ ko jëlee côté financier côté am-am. mais rôle ba mu daan joué jouetu tu ko. te ba léegi boo gisee El Hadj Mansour euh, Mbaye Mathiaaka yal na fi yàlla bàyyi. mu yàgg fi loolu gën a ba ci kanam. mi ngi def rôle boo xamante ni dafa am solo ci réew mi te lu ci suuf loo xam ne ñu bari xamuñu ko sax ci kaw. loolu moo nekkoon rôle Gueweul. Hmm, très bien léegi nag dañu ko yàq. mi ngi noonu kon nag moom ay Akon ñu ko bàyyi mu dérouler parce qu'il ne faut pas qu'on ait peur de l'aventure euh, notre problème ici et quand je parle de nous je parle du gouvernement parce que ku ci nekk am nga fa mbokk waaye bu saa ñu gisee kenn koo xamante ne mi ngi xaw suqali ko bitim réew ñëw fi ngir euh, créer ay emploi rek dañ lay jàpp euh, euh, adversaire concurrent euh, ba nga xam ne ni dañuy dem see la faf lor askan wi euh, xëy xëy na gën a jur li nga xamante ni moom moo di ñàkkum liggéey ci ndaw ñi moo tax nag euh, mbëkk mi di fi gën di bëri il faut ñu am suñu yërmande ak tuuti complexe si suñu diggante ñoom nee naa leen tey rouge laa sol duma leen may naara li ko gune di wax fii la ñuy ndar képp suñu ab éphéméride nag maam si di may ma la tribune yéen kay biir kër gi ànd ceek kii di euh, Abdoulaye Mbow. Mhm. ah Binta Ba ñoom ñooy la tribune alors Bougane Gueye va rejoindre la grande coalition de l'opposition euh, mi ngi noonu kon nag il devient le cinquième euh, euh opposant